dégg nga jàngat bu njëkk bi ma ci am mooy déjà euh, ñàkk dal bi am ak ni ñuy manipuler ni ñi trop facilement léegi ci affaire yooyu ñoo ne ay nu mu ay influenceuse ngeen baal ma ay jigéenu caaxaan yoo xam ni duñu royukaay ci dara boo leen xoolee seen jëmm nii rek da ngay tiit tellement boo gisee maquillage beeg seen waxi nag seen lépp day woote ci lu doy ci lu charnel waaw ñooñu ñooñu bu ñu leen bàyyi àdduna bi fii ak euh, numérique bi dinañ taal àdduna bi koo ci gis ci ñoom mu ngi am train de vie boo xam ni liggéeyam mayu ko ko waaw ñu ngi tukki fu neex di dundee num ko neexee ci alal bu baree bari boo xam ni même ñi ne yore ay entreprise dund dund boobu luxe loolu loolu loolu dafa yomb de dafa yomb donc ñooñu ñuy wax ah toog sa clavier nii rek def sa maquillage yëpp taxaw naan influenceuse la influenceuse ci lan loo jàng ci lan ngay influencer nit ñi donc nañ njëkk rek régler problème boobu loolu ba tam Dubaay problème la jékki-jékki rek ay nit génne seen vidéo ay jigéen génne seen vidéo waa jigéen ñi dañuy def lii dañuy def lii dana nga seetlu ne yeneen jigéen ñooy feeñal yeneen jigéen kon na nga seetlu ne benn proxénétisme international moo fi nekk boo xam ne ku am intérêt bëgg yàq dara wala bëgg cee am dara nga génneel la neex yooyu noonu day am fu nekk affaireu njaaloo ba njaaloo ak mala ay kii sobe bu fekkoon amul woon bu fekkee Dubaï la xewee woon scatologie en francais mooy di jëfandikoo ay neefe rek ay sobe tur bi fan la jóge fekkoon xamuñu ko li naar bi waxoon xam nga naar bi dafa ñëw ci benn dëkk euh, laajte wanag bi ñu ne wanag baa ngi ndale mu mu gàddu saagam dem ba mu euh, mu teg saagam dem ba mu yàgg ñëwaat jël saag bi waa dëkk bi ne ko yow li ci wanag ba ngay dem looy yóbbu yu diisi yëpp ni kuy dem wanag koy woyof moo gën bàyyi fi saag bi rek fii sàcc amu fi naar bi ne leen ah sàcc am ñu ne mu ne bi lu mu fii wut tóor bi lu mu fii bu fekkee xamu leen sàcc sàcc amu fi lu fi indi tóor bi kon scatologie est-ce que Dubaï ñoo ko créé terme français la kon ñoom xam nañ mooy lan zoophilie Dubaï ñoo ko créé di séy ak mala am na dëkku tubaab yu mu dagan temps yi rek maa ngi koy doon gëstu nii Danemark Norvège dafa am ay groupe de zoophiles kon lu tax ñu bëgg tuumaal léegi du Dubaï tuumaal benn réew parce que am na ay benn benn yu fa def lu mel noonu est-ce que sax ñoo ko def ak nan lañ ko defee si suba rek maa ngi gis kenn ci jigéen ñooñu ne Interpol ñu koy recherché parce que moom ci boppam wax na ni man loolu maa ko def pour xaalis ñu naan waaw dañu bëgg def nit ku ñuul jaam arab yi dañu bañ nit ku ñuul courant anti islamique yi profito ci bëgg boole jullit yi entre noir ak euh, arabe ah et cetera et cetera alors que am benn proxénétisme international benn benn système de production internationale bu am moo xam Dubaï moo xam Israël moo xam feneen ak feneen lu ne la ñuy def ci àdduna bi lii lu ndaw la ci lu ne am na dëkk yoo xam ne dafa dagan am na dëkk yoo xam ne dañ koy tere mais même dëkk yi koy tere wax leen ma ban dëkk mooy boo xam ni euh, mën nga fa tere leen nañ jël tey ji suñu Sénégal am na ruq yoo xam ne sañu leen faa dem waaw parce que xam nga à peu près la fay xew mais tant que seen ruq la foofu ak ay maison close ak ay soirée yooyu ñu fi def nii ah boole Sénégal fii la production dañ ko fi autorisé tey ki nga xam ne day jaay yaramam mais kooku niñ koy toppatooyee yow mii feebar sax tey duñ la toppatooyee noonu mais c'est pas parce que dañ ko yërëm de pour mu nekk disposition góor ñi ko soxla yaa subhanallah ce kon kan moo défendre jigéen dëgg islam bi ne kii na ko borom kër toppatoo wala magam wala société bi toppatoo mais bu ñu ko bàyyi ci mbedd bi tey xolal jigéen bi taxaw ci mbedd bi ñu naan euh, dafa xiif dafa mar ñiy wax production par nécessité c'est très très rare jigéen def production parnicité même bu fekkee loolu la sax xanaa benn fan lay doon wala ñaari fan pour nga lekk dara mais di nga ko def ay atiya nicité xanaa boo defee production une semaine ba am ci benn euh, cent mille sax xanaa nga ne xaaral ma seet benn petit commerce nga xam ni kon ñiy wax loolu weg jigéen taxu leen ñu koy def ñi génne vidéo yi nii influenceurs yooyu da nga yaakaar ni wormaal jigéen moo tax ñu def ko ñoom seen bopp ñu ngi dund système yoo xam ni production la na xaalis donc buñ ci tuumaal ay Dubaay ak nangam yii day am Chine day am Dubaay day am France day am fu nekk léegi nag ku nekk yaa war a xam sa bopp ñaareel ba tamit c'est pas parce que dañu tudd ay nit rek nga ne dëgg la tey jii ñu ne am na 43 sénégalais rek nga ne waaye sénégalais yi dañoo yàqu naam yaa ngi tooñ de 43 sénégalais ñan la dégg gis nga seen tur ñan la voilà est-ce que yéen gis nga benn liste ñi wax loolu ñan la ki ki wax loolu kan la moom enquêteur la influenceuse boobu yow du tax nga koy wóolu du personne bu fiable dafa nekk ci ay intérêt moom dafa am ay nombre de vues da nga gis influenceurs ay 1 million d' abonnés la ñuy am ak xeeb nañ ko jëm kaw mais loolu dañ koy jaay ñoom dañ koy jaay donc vidéo bi li ko génne ki ko génne kooku nekk nii mi ngi ci xaalis boo xam ni xamoon nu mu toll ba tax mënoon na gis loolu bañ ko génne parce que waru ko sax génne parce que lu mel nii xale yi di ko gis ñëpp nii mënoon na ko gis sax daal ne lii rafetul ci deru jigéen ak ci xale yi dama koy nëbb mais daf koy génne parce que xam na ni bu ko génnee mu am un million de xaw ma nangam cinq cent millions de vues ñu fay ko ci plateforme am na ci kenn koo xam ne maa ngi koy suivre mu ne temps yi maa ngi maa ngi dëkk sàngam euh, ñi ñi abonné ci man ñoo ma payal voyage foofu ñi abonné ci moom ñoo ko payal voyage lan na séq ak ñoom bañ payal ko voyage te mu am ñu xiif à côté à gauche à droite ñu bañ leen a jox dara di jox benn influenceuse boo xam ni dafa suur këll ah euh, kon nga xam ni il faut faire très très attention mais nag ñaawteef moom ma ne la njaaloog anam bu mu mën a doon ak prostitution boo ko xasee ba nangu lu ne mën nañ la ko defloo parce que jigéen bi bu xasee ba nangu luwee yaramam daal ne fay ma te nga moom sama yaram ci temps bi nga ma bi nga may fay kooku bu la neexee nga ne ko naanal nangam lekkal nangam parce que yaa moom yaramam ci jamono jooju daf may jaaxaan léegi ma gis féministes yi sax doo leen dégg ñuy condamné prostitution ngeen ko seetlu da nga dégg ñuy coow mariage précoce da nga leen dégg ñuy coow euh, excision mais est-ce que di nga leen dégg ñuy coow prostitution parce que dañ jàpp ne métier la léegi sax nan lañ ko tuddee le travail du sexe jël ay jigéen suñuy sœur suñuy nangam tuddee leen travailleuse du sexe ku yërëm jigéen di nga ko tuddee loolu ku yërëm jigéen di ko tuddee travail du sexe euh, travail sexe loolu loolu loolu nite na est-ce que loolu euh, naan sobe moo ko gën a grave man ànduma ci analyse boobu comme ñuy wax ne non euh, gis naa ñu ma wax loolu imam waaye imam du rek affaire production mais dem bay naan sobe dafa nite di ma ne mais production tam dafa nite nite di benn guddi ay góor yu bëri ngeen baal ma wax bi euh, sëy ak yow te xamoo fu mu jógee ah duñ sa borom kër ngeen ne loolu bon comme dagan na wala pays laïc la war waruñ ci wax mais nag naan saw ak xamal ngeen baal ma loolu moom dafa garaaw subhanallah benn baaxu ci benn baaxut te tam lii occasion la pour que Sénégal ñu yëkkati question boobu nañ fi araamal prostitution ba nga xam ni ku koy def da ngaa làqu wala xama looy def mais bu mu nekk loo xam ni tey jii ñi ñiy prostitué wu ci suñu sœurs yi fii Sénégal mais ñan la ay néew ji doole rek ay néew ji doole tey jii ñi fi am koppar euh, walla nekk ay kilifa seen doom dinañ prostitué kon ñi prostitué wu ñan la en général c'est des femmes et des filles de familles pauvres même bu ñëwee ba nekk ay projet de luxe sax mais foofu la ñuy mais ñi nga xam ne tey am nañ alal am koppar seen doom dañ leen di dugal école ñu jàng ñu dem France jàng tubaab ciib ciib ñëw fii nekk ingénieur et cetera kon ñi nekk ci mbedd mi fii ñu leen di protéger di leen wutal carte nañ la mooy doomu baadoolo yi ndeysaan ba pare nga dégg féministe sax doo dégg seen kàddu ci ñu condamner prostitution xam ne àndul ak dignité jigéen léegi ñu naan ma woy euh, naan sobe loolu mooy gën a nitee di mais production bu fekkee dëkk boo xam ne la dafa lay euh, nañ ko bàyyi noonu nangam subhanallah